mbërëm géejuwaay mii di Balla gay 2 ginnaaw bi nga xamante ni waa CNG convoqué woon nañ ko néegi ci li nga xamante ni moo di bi ji ñu génn mu waroon a wuy ju moom moomee nag mën nañ ñu wuy ju googee nag mujjutoon na am moom moomee nag di Balla Gaye de mën nañ ñu jamono ji sax dafa daal di génn fi nga xamante ni moo di si réew mi biñ sukkandikoo si ki nga ni moo di manaasëram di wax ne daal ñi nga xamante ni ñoo di waa CNG nag il faut ñu woyofal li nga xamante moom lañ teg si kaw Balla Gaye de waa CNG yooyu nag dañoo wax ne daal convocation bi nga xamante def nañ ko Balla Gaye de bis bu ñettee nag maanaam nañ ko daggal li nga xamante ni moo di koppoor koppar yooyu sax mën nañu si li ñuy wax ndax nag dañ koo dagg Balla Gaye benn million boo xamante ni lañ dagg si kopparu Balla Gaye te loolee nag la ko waraloon du lenn lu dul nee nañu daal ba muy dugg si stade ba dafa waroon a jaar fi nga xamante ni moo di sa bunt ba te Balla Gaye jaaru sa bunt ba jaar fi nga xamante ni moo di sa kaw maanaam daal di tëb li nga xamante ni moo di miir te loole nag waa CNG nee nañu nag dañ koy tere loole tax na ñu daggoon li nga xamante moo di Balla Gaye de 1 million bi mu toogee ci bi nag dem nag di xas ñi nga xamante ñoo di waa CNG dem leen di wax nag waa CNG ñii nag maanaam ay sàcc lañu naqadi woon waa CNG lool ba taxoon ñu woolu woon ko pour Balla Gaye 2 daal di ñëw daal firndeel loolee mu wax teg leen ko seen kaw di leen ko maanaam tuumaal indi li nga xamante ni moo di ay firnde ñoom ñooñu nag ni mbëri nag mën nañ ñu ngi wéy ba léegi di ñaawlu li nga xamante ni moom lañ leen di dagg seen kase yi di ko ñi nga xamante ni ñoo di waa CNG di ko dagg si ñoom ñoom ñii nag ñuy wéy di laaj CNG mii nag lim leen di dagg ana fan la koy dugal ci làmb ji